se conforme toujours aux directives du du, du chef vous savez <coughs> moi je, suis de l'école du libéralisme <laughs> Ablaye il disait toujours qu'il n'y a plus rien à inventer dans le monde on emprunte et on adapte on emprunte et on adapte aujourd'hui il y a une situation nouvelle qui est inédite dans l'histoire du pays boo xam ne kenn mësul am lu mësul am nag dañ koy waxtaanee xam nga man wax nga sànq te loolu laay dëgguwaat parce que man dama nekk militant de parti nekk de un leader et j'ai toujours dit que je ne me vois pas d'avenir politique en dehors de son destin lui et ça je continue de le dire xam nga Cheikh il a son parti donc il faut que ay parti am toog ay man maa moom son bopp man mi maa moom son bopp te ci parti laa nekk Macky Sall fu ma désigner man naa fa nekk. fu mu joxoñ fu mu ma joxoñ foofu ngay xool nga man du ma nekk à une loyauté à géométrie variable moi quand je suis blanc je suis blanc pas du genre Macky Sall bu génnee sax ci politique ci politique mu ne ma Abdoulaye Sow taxawal ma ne ma taxaw fa parce que man maa jàpp loolu te dafa am un compagnonnage historique et idéologique bu ñu ànd ba àgg fii. doo bëgg lu leer xam nga Sénégal fii ñun ñii lay tuwaay avenir yow xale nga am nga avenir man Kaffrine gi nga nekk am na fa base non moi je suis pas dans ça moi je suis dans une loyauté sur laquelle on discute pas. jamais de la vie. li ma gëm laay def et jàpp naa ni. Macky képp ku ma joxoñal ëllëg ma topp ci kaw. donc yow xaaroo ay waxtaan yow Macky Sall rek ngay dégg man man dama leeral xam nga loolu dama ko wax ci émission waxaat ko waxaat ko président sax benn jour nee na ma bul di wax loolu ma ne ko dama koy waxaat parce que dama gëm li ñu bëgg a bi ma ànd ak yow ba tey gis te loolu mu ngi commencé moo tax ñu bëri bu ñuy wax waaye 2008 2007 ma ne Macky Sall judduwul 2007 judduwul 2008 ñu nekk PDS nekkoon PDS xam nañ tout son parcours te ñu def ko ensemble à moment il y a eu comme Khalifa Sall et Macky Sall ont été ensemble à un moment il y a eu divergence adduna mooy doxee noonu Idrissa a rappelé tantôt que Sonko chez lui pour essayer de militer au réew mi donc adduna mooy demee noonu. moom moom foog mu sànni ma benn quoi. non xam nga nag même boo bëggee jàmm il <laughs> xam nga sama xam nga sama ngoro nga il faut parfois aussi il faut parfois moo tax ma ni foofu c'est un débat interne au Benno et à la paire. l'APR va donner sa position le Benno va donner sa position mais en ce qui me concerne individuellement et personnellement ma position reste constante je m'alignerai à toute décision que Macky Sall prendra